Euh, qui est aujourd'hui une diversification des produits de la LONASE. Donc euh, cette plateforme qui permet à des heureux gagnants d'aller regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pas seulement regarder cette Coupe d'Afrique des Nations, mais la regarder tout frais compris par la LONASE. Le billet d'avion, l'hébergement, le, le, les, les, les perdure même, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, nous n'allons pas laisser ces personnes y aller comme euh, tout frais compris par la LONAS. Et aujourd'hui, tout simple, c'est simple. C'est tout simplement un jeu concours euh, qui permet aux gens, à partir de 1000 francs, de pouvoir euh, participer à un tirage au sort, ce tirage au sort qui va leur permettre d'aller regarder euh, en Côte le 28 décembre, un autre tirages le 4 janvier. Et ces tirages ont permis à deux donc quatre précisément. Il s'agit de M. Babo Touré qui nous vient de la région de Thiès, de M. Euh, Toubagay qui, qui, vient de la région de Saint-Louis, de M. Abdoulaye euh, Chongan qui vient de Dakar et de M. Abdoulaye euh, Ndao qui vient, qui vient de Kafrine. Donc ce sont ces heureux, ces heureux gagnants-là à qui aujourd'hui on va remettre le titre de séjour. Il va y avoir également deux autres tirages qui vont permettre à quatre autres personnes de partir regarder cette Coupe d'Afrique. C'est d'ici peu que, que, vont se, que vont se faire ces tirages-là. Donc pour l'instant, l'honneur est donné à ces quatre personnes qui sont présentes et euh, ce, cette remise est faite en présence euh, du secrétaire général de la LONASE, M. Momodou Gueye, avec euh, Mme Nambao euh, Djalondao, qui est aujourd'hui la coordonnatrice de cette plateforme LONASBET, et en présence également de Mme Sall, qui est Mme, D, Mme Sall Meymounadé, qui est notre directrice du marketing et de la communication. Donc sans plus tarder, nous allons bien sûr procéder tout de suite à cette remise. Euh, Euh, suñuy jouer bëgguñu di dem si suñu kiosque yi kese bëgg nañ toog seen di jouer en ligne moo tax LONASE daal di créer propre plateforme am boo xam ne boo fa demee mën nga fa def PMU mën nga fa def ay paris euh, tout type de sport mun nga fa def également ay jeux de de casino léegi nag kan bi nga xam ne ku nekk xam na ne suñu équipe moo remporté euh, Coupe d'Afrique LONASE dafa wax ne dañuy def benn jeu concours boo xam ne ak mille francs Euh, mun nañ participer tirage au sort boo xam ne dañuy dem pour la CAN LONASE nag moo lay jox euh, billet d'avion moo lay euh, héberger jox la hôtel transporter la hôtel ba stade pour chaque match te ñay dem ñoom dañuy toog ba final donc tey on a quatre gagnants ñi nga xam ne tey dañ cérémonie bi dañ leen jox seen titre de voyage mais ñoom dañuy toog ba final à part ñoom nag am na ñeneen six gagnants ñoo xam ne ñii quart de finale la ñuy dem ñii finale la ñuy dem lii yëpp pour euh, wane na rek LONASE ni mu ko yàgg defee euh, dañuy jël ay jeux concours def ko pour nit ñi am possibilité dam def suñu promotion produit mais également ku nekk xam na ne LONASE dafa bëgg jàppale population yi et en tant que sponsor officiel de l'équipe nationale itam euh, dañuy jàppale sénégalais yi pour ñu dem seetaani kan bi. di leen xamal ne ñu leen di nuyu ci turu directeur général Abdourahmane Baldé. xamal mbooloo bu fi teew ne lonase point bet mooy plateforme bi nga xam ne lonase ak moom nga xam ne ci internet ngay jaar pour mën saa jouer bañ ko lancé ba léegi gis nañ ci ay ndam yu am solo ñu am ci nag mbégte directeur général am ci mbégte ba benn mu changé plateforme bi daal di ko def mu doon direction direction bi madame Ndaw moo ko jiite beneen bi itam mooy ndam yiñ ci am tax na ba nga xam ne ci at bu bees bi dañu bëggoon a sargal suñuy parieur parieur yi nga xam ne ñoom ñooy xëy di jouer ci lonage point bet looloo tax ñu organiser jeu concours bi muy jeu concours CAN 2024 bu ko defee nag mu am fukki gagnant yoo xam ne dañ leen ci tànn fukki gagnant yi pour mën cee bokk da ngay jouer 1000 francs ci plateforme bi képp koo xamante ne jouer na 1000 francs ci plateforme bi bokk nga ci concours bi bu ko defee ñu organiser tirage première partie tirage bi mooy bii nii nga xam ne quatre gagnants yi ci la ñu génnee gagnants yi nag deuxième partie bi danañ ko tiire muy ñetti gagnants yu ci war a génn ci quart de finale moo am encore yeneen ñetti gagnants yoo xam ne ci finale bi la ñuy génnee bu ko defee nag l'ONAS lépp la jël en charge jëndal na leen ay billets yóbbu leen ci kan ba fële Côte d'Ivoire seen transport diggante aéroport ba ci seen hôtel Lonase a koy jël en charge hébergement mooy euh, fa ñuy fanaan ci hôtel yi ak yooyu Lonase a koy jël en charge bu ñuy dem di seetaani match Lonase a koy jël en charge day def ay bus nga xam ne ñoo leen di transporter ñu dem ci hôtel ba jógee ci hôtel ba dem ci stade bu ñu paree aussi mu yóbbuwaat leen seen hôtel beneen bi pour la ñuy xewlu foofu LONASE parieur bu nekk gagnant bu nekk jox na la sept cent cinquante mille mu doon say fre ya ngay dépenser ci période boobu ngay nekk foofu waaw loolu daal mooy mooy concours bi bu ko defee maa ngi invité ñëpp ñu continuer di parier waaw képp képp ku ci bëgg a dem pariel ci lonase point bet te la lay laaj mooy mille francs rek ngay teg boo tegee bokk ci concours bi bu ko defee xëj na ci yii di ñëw tirage yii di ñëw nga bokk ca ñu jël la en charge di leen gërëm di leen sant di leen bëggee lool sama mbokk journaliste yi. parce que tout simplement j'avais envie de participer à la Coupe d'Afrique c'est la seule raison hein, que j'ai joué là euh, voilà. Voilà. Et j'y croyais même pas trop parce que quand on m'a appelé, je pensais que c'était une farce. Parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça. Quel est le euh? Euh, sentiment que j'ai, c'est de rêver de participer à la finale avec le Sénégal. Et point barre, j'y vais juste pour la finale. Et rien d'autre. Ben, euh, dans sa devise, elle est là pour le pour la population. Donc même si les gens jouent et perdent, l'argent retourne à la population. Logiquement, est, on est gagnant toujours. Non, je jouais de temps à autre, mais cette fois-ci, c'est parce que juste c'est la Cannes et c'est en Afrique. Je voulais, en Afrique, je veux souffert en de la défaite, je voulais juste notre revanche et j'ai joué pour ça, pour aller participer à la finale c'est tout. waaw man c'est mon seul souhait ay demi-finale premier tour je m'en fous man yàgg la finale qui m'intéresse contre n'importe qui. le plaisir parce que j'avais prié euh, de gagner. non non personne ne peut penser à gagner ah. y a plusieurs on est 18 millions de Sénégalais peut-être qu'il y a 1 million qui joue donc yaakaaruma woon gagner dama gagner par hasard rek c'est la hasard Merci.